rawatina ci lu jëm ci wàllum doublon yi te nag jamono ji war nañu ko lijjanti ndax jafe-jafe yi nga xam ne Sénégal amoon na ko ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu génn maanaam war nañu ko moytoot parrainage bi am na ñenn ñoo xam ne sax li ñu wax maanaam mooy nañu ko supprimer yéene kaay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas li ambade sall ñi nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi jamono ji teg nañu pression bu métte nga xam ne mooy Macky Sall ci lu jëm ci rassemblement yi nga xam ne ñoo ngi koy waajala ak concert de casserole bi ñu jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru décembre heure bi nga xam ne moom la Macky Sall di def discours libération yéen kaay gi de la témoin xëy diñu xibaar naan ñu waa Benno Bokk Yaakaar ñoom nag jamono ji ñoo ngi xataraayo mer nañ ba mara détaillé ci concert de casserole bi coalition Yewwi Askan Wi daal di ndax ñoom Abdou Karim Sall nee nañu ñi nga xam ne ñuy waa coalition Yewwi Askan Wi dañoo war a respecté li nga xam ne mooy institution bi te nag askan bi dañoo am sañ-sañ dem ak dikka yéen kaay di Walf Fadjri nga xam ne moom lañ jagleeloon coronavirus moom Mamadou Lamine Diallo député na lii nga xam ko luubal daal di koy détourné loolee ay cotisation la yoo xam ne askan wi ñoo ko cotisé woon lenn li ay addiya la woon waaye nag mbir li mbir la moo xam ne garaaw na génn xeetu garaaw goo xam ne war nañu koo lijjantee Mamadou Lamine Diallo nee na ci Sénégal war nañoo amal ay manifestation Mamadou Lamine Diallo na ci Sénégal war nañoo amal ay concert de casserole Mamadou Lamine Diallo nee na ci Sénégal war nañoo amal nag ay grève maanaam ñi nga xam ne ñooy travailleurs yi dañoo war a organiser ay nag yoon mën a def liggéeyam ci nga xam ne maanaam njombe la goo xam ne jégg na dayoo Assemblée normal ñoom tamit war nañoo installé li nga xam ne mooy haute cour de justice ngir ñu mën a topp ministre yi nga xam ne def nañu ci ay lu bala yéene kaay gi délibération nee na bi ñu dénk wàllum tàggat yaram ci réew mi nee ma ministère sport foofee tamit rapport cour des comptes bi joxar bi ne leen am na lu toll ci cent ne dash bi di Mamadou Ngom ña war na koo leeral yéene kaay gi de sa ñi nga xam ne ñuy wax sudes di kuréel goo xam ne dafa ëmb ay jàngalekat ñoom tim ñoo di enquête nee na Amadou Ba gouvernement de combat bi ñu ko tegee ak léegi toll na ci téeméeri fan maanaam cent jours ñi nga xam ne seen xel jëm ci wàll we di analyste ñoo ngi koy ci biir journal bi yéen kaay gi di Rewmi wax ci dossier Adji Sarr Ousmane Sonko journal bi nee na wa dem na këng waxi mag dem na ndañtaale ma ne na ba dossier ba jeex na yéen kaay gi di A xëy di ko dëggala yéen kaay gi de Le Quotidien yor yor xëy wax maanaam PV Mamour Diallo keroog bi ko doyen des juges daal di convoqué di ko déglu avocat yi Ousmane Sonko yi dañoo am sañ-sañ maanaam doyen des juges daal jox PV bi waaye nag boobee ba léegi nii joxu dara avocat yi Ousmane Sonko yi demoon nañu ca bureau doyen des juges fekkuñu ko fa ba waxee dañ leen wax dafa dem séminaire avocat toog di ko xaar ba 17h gisuñu Maham Diallo yéen a kaay gi de Le Quotidien yor yor nee na a tëjee ne mooy ki ñuy wax Viviane ak maître Sow jëli woon Adji Sarr yéene kaay gi di libération ak le témoin nee na Touba gi nga xam ne moo fay jaba jonge loolee tax na Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalif général des Mourides démb woolu na police ak gendarmerie ca Touba waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci wàllum kaaraange Touba Safinatul Amana ak Xudamul Xadim ñoom nee nañu leen génn leen seen loxo ba mu set wecc ci lépp xam ne jëm na ci sécurité Touba jamono ji police ak gendarmerie ñoo koy